li ci biir tool émission bi fekk baykat bi ci biir toolam di waxtaane ay jafe-jafeem moo dellu si tey ci seen chaîne YouTube Mas Agri ànd ci ak astol mi nga xam ne mooy indi engrais granulé yi ak foliaire yu baax yi fii ci réew mi tey nag dañu ñëw fii ci tamax tamax soo koy dégg mi ngi ci région de Saint-Louis ci commune Diama boo fay dem da ngay ñëw ba mbuubeen nga wàcc jël sa ndeyjoor dugg ci biir ran-ran bi noonu ñu ngi fiy fekk si nag sunu benn xarit bu jàmbaare loolu bu tudd Mor la Mor Sylla entrepreneur agricole la moom mi ngi yëngatu fii ci région de Saint-Louis depuis juróom-benni at. Mor Sylla nag ñu ngi ko fekk fii ci toolam bi nga xam ne mi ngi toll ci cinquante hectares. wante waxtaan wi nga xam ni bëgg nañ ko séq ak moom rëy na lool looloo waral nag dañ koy diviser ñaari épisode tey nag ñu tàmbalee premier épisode bi nga xam ni tool bi la wër wax leen tool bi ni mu bindoo waxtaan ci lu bare Mor Sylla nag mën nañu wax ni jàmbaar la ndax moom ma nga tàmbali woon ca booru parc ba juut ñu yëkkati ko fa biñ ko yëkkatee nag ci la ñëw fii tàmbaliwaat liggéey bi à zéro tool bi pour ndox bi rek mi ngi jëlee ndox mi ci deux kilomètres deux kilomètres la gas kanaal euh, bu mag boo xam ni fa lay jëlee ndox mi mooy ñëw ba egg ci tool bi cinquante hectares nag soo ko déggee war a xam ni clôture bi war na metti te tubaarkàlla tubaarkàlla góorgóorlu na daal ba jël tool bi yëpp mu clôturer ko ñëw nag installé wu di def euh, maraîchage. ñoo ngi fekk nag ci biir maraîchage bi mi ngi nekkoon ci. toolu kaani boo xam ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci campagne kaanim wante tamit jamono yi moom tàmbali na campagne tamaate bi lépp mu koy def ci goutte à loolu am solo lool ci fii ñu nekk ci waalo bi ndax waalo waalo yi ñu ci bëri bu léegi gëm nañ ni goutte à moom mënul nekk ci seeni suuf te kii mu ngi li wan loo xam ne waroon na ak seen xalaat boobu ñoo ngi fekk mu def tomate boo xam ni variété Cobra bi la wante daf ko def en escalier maanaam euh, boolewul yëpp jëmbatandoo boolewul yëpp defandoo pépinière dañu rawante bu ko defee suñ demee ba nga xam ni ñor na njaay mi gën a yomb ndax njaay bi dina mën a yàgg ak moom. jamono yii nag mi ngi tàmbali pépinière variété takaay waaw soble takkaay hybride bi tàmbali na pépinière bi ndax am na waar woo xam ne bëgg na ci liggéey soble ndax xam ngeen ni campagne bi fii tàmbali na te ku ni waalu rek mënoo mënoo ci génnee tamaate mënoo ci génnee soble kaani yooyu moom seen mënit la ak ceeb sëñ Mor nag mi ngi continuer aménagement am ndax gis ngeen ni tàmbali na liggéey benn kanaal boo xam ne bu mag la buy dugg ba ci biir tool bi ndax muy am ndox mu doy wante tamit jël na benn partie tool bi nag di fa def loolu ñu naan arboriculture maanaam di bay euh, garab yu mag yu am meññant yu mel ni limon mi ngi ko fi def ak yeneen gàncax yoo xam ni taxawal na ko fa. parti bii ñu nekk nii nag mi ngi tolloog fi nga xam ni foofu lay liggéey limon yi wante nee na jafe dafa am jafe-jafe jamono yu surga looloo waral garab yi xaw sonn jamono yi ci kaw loolu nag la ñëw defaat beneen aménagement boo xam ne waalo waalo yi moom lañ gën a miin mooy aménagement irrigation à l'arrêt bu ko defee nag léegi ci biir aménage boobu boobu la bëgg def gerte ci diggante garabu limon yi ñàkki ndox mi nag bokk na ci gàllankoor lool euh, limon yi euh, li ko waral nag mooy surga bi nga xam ni moo newoon ci boor bi faroon ci côté bi moom moo bàyyi loolu nag lu normal la ci tool wante euh, indi na benn jafe-jafe ci développement wu gàncax gi gënnaaw pépinière bi nag fii ci palace yi nag lañu war a def soble bi moo gis moo tax ngeen gis noonu machine bi jaar na fi ba pare préparer nañ ko place yi nag ku ko gis rek ak bët yi fii feej ak mode aménagement bi rek sa xel am ci lu mu daj muy ceeb ndax sëñ Mor Sylla fii tamit def fi yëngatuwaat ci ceeb bi moo ngi ci liggéey variété Sahel yi Sahel deux sant dix yaakaar naa doon waxoon moom la fiy def di ci yëngatu zone yu xaw metti la nag parce que xorom see bare wante jàmbar jang ci góorgóorlu génn na ci période bu métti bi ci wàllu maanaam ci fermetu nawet bi ceeb baa ngi noonu pare na mi ngi noonu focc na nag. kii nag mooy moto pompe bi nga xam ne moom mooy liggéey ci wàllu ceeb bi moom moto pompe trois cylindres Lombardi di la sortie bu mag la àndal sortie trois cent la. kiripin bi rek fi muy dugg noonu ci biir euh, ndox mi rek profondeur cinq mètres la machine bu mag bu am doole la boo xam ne moo leen di jàppale ci dugal ndox ci tool bi ci lu gaaw tool bi nag xam naa ni Mor Sylla def na nëbbatu gaa ñi wante moom am na xalaat leer ci li mu bëgg def looloo waral doon fi fekk ay tracteur ancien modèle italien ay Fiat ak yu demee noonu yoo xam ni comme bi ngeen di gis nii benn euh, tracteur la bu ma booleeg benn offset croisé euh, mais bu baax a baax a baax la parce que yii moom boo taal léegi mu tàkk nga dem def sa liggéey da nga koy démonter nii ngi ku ko romb da ngay yaakaar ni fonctionner wante yii en réalité ñoo yor tool bi yii équipement nag la fi moor bay yi bari na fi yor na fi ay tracteur ak yeneen xeetu machine yii nañ gis noonu euh, bu bële boobu noonu. benn semoir pomme de terre la parce que boobu moom mooy semoir pomme de terre bi nga xam da toog rek tekki ci table bi pomme de terre yi di wàcc di suudu directement machine bu moderne la lool adapté ak ñun li nga xam ni dinañ ko soxla fii ci waalo bi suñu jógee noonu fekk fi tamit peel bi peel à chenille la nga gis noonu mu ànd ak ñaari godde yu bokkul godé bu mag ak godé bu ndaw fekkaat nan tamit mu yoraat yeneen xeetu tracteur tracteur yu ndaw yi nga xam ne ñoo yóbbu charge yi ak yeneen tracteur yoo xam ne dañ ko attelé ak euh, lu mel ni pelle yéen a ngi koy gis noonu moom tamit dem ci liggéey pour aménagement la ak euh, pour euh, déplacer wala pour nettoyer canal yi ak yu demee noonu fekk nañ fi tamit appareil boobu ñu naan laser laser pour ñi ko xamul ak ñi ko musul gis machine la boo xam ne moom la ñuy jël takk ko ci tracteur bi muy niveauté euh, kii bi euh, parcelle u ceeb yi xam ngeen ceeb il faut nga am benn euh, nga équilibré surface bi sinon pente bi day jël ndox mi di ko yóbbu fi nga xam moo gën a suufee bu ko defee ceeb yi faree ci kaw moom du nu sax normalement du nu màgg normalement machine bii nag moo tudd laser ancien model bi la bi nga xam ne moom dafay ànd ak yeneen xeetu équipement la dinañ ko gis après yéen a ngi gis noonu tamit euh, épandeur d'engrais bi ak fumier bi machine bii la moom lañuy sol engrais bi ci kaw takk ci tracteur bi mu jaar ci suuf am nag lu mel ni ventilateur boo xam ne dafay jël di wundeel di sànni fekkaat nañ fa beneen appareil boo xam ni moom genre herse la herse nag soo ko déggee machine la bu ñuy takk ci tracteur moom tamit mooy xoos suuf si di génnee ñax mi nuru na ak loolu ñuy gis ci machine yu ndaw yi mel ni usine fekk nañ fi tamit benn beneen benn boo xam ne moom dina ko utiliser tamit suy nekk ci récolte ceeb beeg déplacé yenn charge yi wante tamit fekk na mu yor benn mois moissonneuse batteuse ancien modèle bi la yii nag machine yu am solo lool la ndax yii moom mooy bay ceeb bi su demee ba ñor maanaam mooy tàqali ceeb bi ak ñax mi moom mooy dugg ci biir ak appareil bii nga xam ne moom moo nekk ci kanam nekk lam bi ci kanam mooy ñëw daaneel ceeb bi boo defee appareil bi nga xam ne moo nekk ci biir moissonneuse bi ñëw dagg ceeb bi jël ñax mi sànni ci wet gi jël ceeb bi dugal ca benn ba ci ginnaaw aj ko su demee ba fees rek fii nga gis ni conducteur ba fa la taxaw foofu la benn lampe di tàkk di ko wan ni mbànd mi fees na bu mbànd mi feesee rek mu arrêté dem verser ñëwaat bii machine gen di gis nag moo tudd Scrafter moom nag euh, aménagement lay liggéey moom vraiment ancien modèle yi nga xam ne dañ ko daan takk ak buum takk ci tracteur bu ko defee dangay dem loolu lii day mel ni loxo boo xam ne day ngëpp su demee tibb suuf si dem nga xool fi nga xam ne moo pant wala fi nga xam ne moom moo gën a suufee nga teg fa maasale ko bu ko defee nga am euh, tool boo xam ne dafay jub lépp tolloo machine bii nag bokk na ci machine yi nga xam ne moom lañu njëkk daan am fii ci wàll bi suñ daan aménager ceeb jamonoy sayet kii lañ daan jël di aménager di tibb di bàyyi xel niveau yi pour maasale tool bi

machine bi automatiquement moom dina euh, xool di natt di réajuster boppam pour joxe suuf si pour aménager directement yii nag deuxième génération bi la euh, troisième génération bi génn na léegi machine yi ñoom amatul sax monte yi yëpp am na appareil yoo xam ne ànd naa moom directement ci tracteur bi da ngay ñëw rek taal sa ordinateur mu dem donc di deuxième niveau d'équipement bi la waaw bagage bi ngeen gis nag mu tëdd nii kii tamit beneen pompe la beneen xeetu motopompe la boo xam ni fekk na ci tool bi moom nag mën nga koo takk ci tracteur bi bu ko defee prise de charge bi maanaam bras bi nga xam ne moo ne ci ginnaaw tracteur bi moo koy jox doole pour mu dem fekk nañ ci tamit yeneen xeetu équipement comme du mel ni euh, machine de labour yi nii ak yeneen xeet yoo xam ni ñu ngi koy jëfandikoo di ko soxla lool ci tool fii la ñuy yemale premier waxtaan wi wante incha allah sëñ Mor Sylla dig nañu waxtaan dinañ ko amal incha allah.